Euh, dafa benn affaire boo xam ni defe naa munu présenter comme da wax livre. Mhm. Euh, mu ngi nii. la couverture. Mhm. Ah. zoom Boubacar Camara ñëw ci yow. construire le Sénégal du futur. Mhm. defe naa keroog def nañ ci benn direct en partie. samedi bi. oui euh, Mbayanta. Euh, kii ak ñoom Biteye ak Mansour. Mm-hmm. dem nañ fa samedi fële ca Fun City. Mm-hmm. pour lancement bi. merci déjà monsieur Camara pour le livre euh, bi mu ñu yónnee jërëjëf euh, alors moom ci sommaire bi dafa wax benn affaire bu important livre bu mat a jënd la. Mm-hmm. dafa ni <coughs> sommaire bi. sommaire bi rek jar na jënd livre bi parce que dafa ne valoriser les atouts du Sénégal réinventer un socle pour la nation être citoyen un entreprendre la révolution de l'éducation et mhm. de la recherche soigner la santé produire ou périr mmh. administrer et gérer autrement et mieux mettre de l'ordre mieux s'ouvrir à l'Afrique mhm. Euh, mieux s'ouvrir à l'Afrique nag boo ko déggee da ngay dem nga nga bàyyi xel li noo wax ZLECAf zone de libre échange bële. Mhm. nga xam ne tey mën na ubbi buntu Afrique nu to paate paate bàyyi suñu buntu xam mbay moo daan indi problème lan la. café gi lay indi. gan nag bu bees nag. dimbali leen ko. <laughs> bal leen nu de ñëw setaan bal leen nu bilaay bi moom c'est comme ça bal parce boo booy door a ñëw ci bërëb dangay dangay laaj wala nga kii sa sant bi rek laa rus wele ah maa jox kafe gi. <laughs> paate mënoon nga bàyyi ba ñu chuté ba ñu pare nga laa ilaha illallah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam <laughs> bal leen de ñii seetaan bal leen billaay dañuy ne si benn élan rek mbay la woon ay temps mbay nag tey dafa kuul xaw ma lu lu tax concurrence supporté wul parti concurrence bi. mba concurrence ci c'est que mbay tey dafa yeeru. concurrence bi dafa déloyal. lii moo tax concurrence baax. ah ah, ah nga bëgg ne parti dafa jël bës. ah waxuma loolu de dama ne rek dafa déloyal. mais mbay c' est comme ça la vie c' comme ça parti dina am concurrent ku ko gën a gàtt. Wells boy. Wells boy. Ah, ah ta parti pourtant nag instant bi dafa mujjee jënd glace ba ngay reetaan reetaan bu rëy ci ginnaaw. ah, ah mu ngi bëgg a miin. <laughs> du dëgg il s'intègre ah, macha allah construire le Sénégal du futur mm-hmm. Mm-hmm. il a parlé de du marché africain ça veut dire que faut que ñu ubbeeku mm-hmm. euh, ak li yëpp il faut que ñu produire et euh, il dit que ce livre présente l'argumentaire du programme de développement durable du Sénégal pour lui Boubacar Camara il pense que <clears throat> selon lui pour sortir de la pauvreté et garantir la prospérité du Sénégal et de l'Afrique un changement de cap est nécessaire ce changement appelle la transformation structurelle de l'économie je pense que loolu lu mat a bàyyi xel la Sénégal ko ko bëgg a defar. Mhm. da ngay économie mais nag pour nga développer économie il faut nga am ay institutions yu fortes de régulation et de contrôle nga dindi le régime présidentialiste fort là li sunu yaay bi am na Touré doon wax keroog te loolu moo la dëgg yàgg nañ ko wax pour que ñu tege nag ci. mais président bu mel ni buur mhm. sur le plan structuration de l'économie ou développement structurel de l'économie socio-économique pour mu dox dafaa jëfee waaye nag monsieur Camara je pense que programme la am na fu mu jëm livre bi c'est à lire mhm. très sincèrement mhm. euh, euh, euh, moom mu ngi joxe Boubacar Camara moom dafa joxe solution yi mooy comment faire pour na ay solution pendant ce temps Cheikh Yérim moom dafa teg euh, baaraamam ci li euh, Mbaye Anta je pense euh, waaw waaw waaw Cheikh Yérim moom dafa teg baaraamam ci ci problème yi maanaam mm. ci ci ci jafe-jafe yi nga xamante ne ci wàllum économie ak yépp yi nga xamante ne dund nañ ko sous le magistère du président Macky Sall. jërëjëf gis naa gis naa ngaa la nabu woon na la ko sànq. Mhm. gis naa li euh, Macky Sall face à l'histoire mm-hmm. hmm? mu ngoog mu ngi Macky face à l'histoire voilà leer na euh, Mamy mm-hmm. mm-hmm. livre bi nag dafa am benn histoire ah oui alors xam nga fële c'est le candidat qui a écrit Mm -hmm. et, et, et, il est rentré dans, euh, dans son programme, ses idées, etc. Et il a super écrit, il faut, il faut le lire. Mm -hmm. Maintenant, <clears throat> parce que mais il faut le lire. Cheikh mhm. xam nga lu tax affaire bi neex. Astou Dione nuyu na ma la ba baax. Mhm. ma xarita bopp ma rakk. Mhm. Astou yónnee livre bi. macha allah Astou jërëjëf. Euh, <laughs> li tax affaire bi am histoire mooy moo di ne. Mhm. Euh, Macky Sall face à l'histoire passage sous scanner d'un pouvoir africain. Mhm. ginnaaw bi mu c'est parce que souvent ci ci préface yi dañuy am ay mais avant mu muy sore dafa def dédicace. Mhm. dafa départ ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa euh, dem ci ay waajuram hmm, Cheikh Omar ak Ndeye Fatou. daal di comme ni sunu kilifa bi sunu baay bi euh, Boubacar Camara dédicacé euh, loolu dina ci ñëwaat sax dinaa ci ñëwaat foog ma cité ko alors. Mm-hmm. Cheikh Yérim gërëm na Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass la preuve vivante que le Sénégalais peut aller à l'assaut du monde dans ce contexte de mondialisation Taïru Taïru Boshi disciple de vos disciples compte au Nigeria. nombre de talibés équivalent au double de la population du Sénégal maanaam tey population Sénégal bi toll ci seize dix sept enfin une vingtaine on va dire de millions ñuy compter ñuy compter wul dafa ne ki noo wax Tahirou Bouchi fële ca Nigéria di taalibe Maam Baay ay taalibeem ca Nigéria ëpp nañu population Sénégal kon xam nga Sénégal yàlla dafa noonu teraanga fu ne. Mhm. parce que Maam Baye dafa dafa international dafa mondial comme sunu kilifa yi ah, gërëm na ñaari soxnaam yi njabootam baax na gërëm na astu mhm. mais moo moo doon séddale moo yónnee macha allah et c'est normal elle est dans le milieu. Mhm. dafa am nag lu tax ma dafa am histoire mooy histoire bi c'est lié à Astou Dione Astou tu permettras le octobre 2022 avant 22 Astou Dione, journaliste, a été agressé à la porte d'un restaurant sur la corniche ouest de Dakar. Alors qu'elle descendait de sa voiture pour acheter de la nourriture à emporter, deux hommes en moto se sont emparés de son sac à main dans la foulée de leur fuite. Mm -hmm. Elle venait de terminer son journal de 20h sur la 2STV, la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Ces agresseurs n'ont pas soigné leur acte pour ne pas, se la... pour laisser de traces. D'abord, Elle a été suivie depuis qu'elle a quitté le studio de télé. Ensuite, le lieu éclairé et fréquenté où le forfait a été commis, a été commis, écarte ipso facto, oui, le lieu où a été commis ce, forfait, écarte ipso la piste de l'acte crapuleux. maanaam du lu anodin du ay nit yu gis rek am opportunité sàcc mais comme ñu ñu yónni loolu la bëgg a wax dafay wax lii indi livre bi. Mm-hmm. Enfin, l'endroit où ont été laissés ces papiers administratifs à la porte d'un commissariat de police maanaam ñi sàcc saak bi dañoo dem jël ay bagaasam yóbbu ko ci police ba lanu soxla lañu yóbbu mhm. quelques minutes seulement après l'agression est un signe patent qu'il s'agissait d'une opération montée pour arracher et interroger son téléphone parce qu'elle venait de devenir ma femme et que j'étais plongé plongé dans une recherche effrénée de documents à Cet incident que la presse a appris parce qu'il a eu, il, a eu lieu sous les yeux de nombreux témoins et qu'elle a été traitée comme un fait divers n'est pas une infraction de plus de la délinquance ordinaire. Mhm. Je n'ai pas tardé par le biais d'un contact dans un service étranger à savoir qu'un document particulier que j'aurais envoyé à un tiers pour ne pas le garder dans la mémoire de mon téléphone est le motif de cette opération. ceux qui l'ont monté devaient au moins m'accorder une petite présomption d'intelligence. Mmh. C'est à Astou Dione, journaliste exposé comme moi, que je confierai des éléments que je cache. maanaam ci tënk Yérim mu agression boobu. Mhm. moo boosté sa réaction vis-à-vis de l'écriture de ce livre-là. Mhm. Euh, mën nañ ko parce que écriture ci jamono daan na jafe daan na yéex daan na jël temps mais léegi tey ji nii euh, je pense qu'il va falloir même qu'on y réfléchisse parce que bind bi dafa am solo dafa des ci histoire. Mm-hmm. lu sunu maam yi deful woon la. donc Yérim félicitations Boubacar Camara félicitations et on se rend que sur les dix ans là il y a eu beaucoup de livres. Mm-hmm. Solution d'Ousmane Sonko. Mm -hmm. le livre du président Macky Sall. Euh, Pape Ngagne a écrit. Mm -hmm. euh, Pape Alé donc sur les dix ans là euh, wax dëgg yàlla alhamdulilah gaañaa ngi bind. et le l' écriture c' le travail de celui qui a son avis et donc qui est intellectuel vraiment bravo. Mm -hmm. à Yérim et et Boubacar Camara Boubacar euh, booy booy booy xool euh, livre yi ci ci ban ban impression nga am nga amagum ak aussi ban xalaat nga ci am. Bon, déjà, retour à la lecture. Oui. Euh, c'est la première chose mm -hmm. me et malheureusement lui disparaître le de plus en plus mm -hmm. euh, beaucoup de gens écrivent mais beaucoup de gens ont également des idées de, se diriger plus vers le digital ou les nouvelles technologies mm -hmm. di ay Adobe Reader mais tu sais il y a, rien de plus beau que le livre mhm. Euh, édition Harmattan moo génne livre Cheikh je vois que moo génne également livre Boubacar Camara pour nous les les lecteurs les gros lecteurs. Mhm. Euh, bu ñuy bu ñuy bu ñuy jàkkaarloo ak livre l'odeur des feuilles et également les pages qui sont feuilletées. Mhm. <laughs> Euh, on retrouve la passion d'antan. voilà nos découvertes également. Mhm. Donc, euh, cher Yerim Sek, Macky Sall face à l'histoire, passage sous scanner d'un pouvoir africain. Voilà un livre qui a fait beaucoup de bruit avant même Mouiguen. Mm -hmm. Et Boumouiguen également, Belégui, les gens ont envie de découvrir, et de lire le livre, et puis nous découvrir le contenant Binga Donc, avec euh, cette préface, mais également le résumé du livre derrière, euh, très très bonne qualité, mhm. que je prendrai beaucoup de temps à, lire et à feuilleter. Mhm. ci soxnaam. Mhm. Euh, bi nga xam ne également xëy na jaar jaar la ça a été un déclic pour lui comme le dit Pa Assane. Mhm. Euh, pour en profiter et également sortir beaucoup de cafards parce que ce livre sort beaucoup de cafards. Mhm. yoo xamante ne ñi moom la ñuy découvrir euh, à travers Cheikh Yérim et pour la personnalité de Cheikh Yérim Seck ce n'est pas quelqu'un boo xamante ne maanaam ay waxam ñii ñi duñ ko accorder du crédit. Cheikh Yérim quand il parle ou quand il écrit. Euh, dafay attirer attention wu ñu bëri parce que justement il a un vécu mm-hmm. et au-delà du vécu c'est quelqu'un qui est hyper expérimenté euh, qui a beaucoup fait également pour la presse autant sénégalaise que internationale et c'est quelqu'un qu'on ne présente plus parce que ku suivre résumé ku suivre historique au Sénégal mm -hmm. et puis ku ku bu bindee livre rek forcément dafay attirer attention ñi nga xamante ne euh, dañu am lu bëri lu ñu bëgg a découvrir loo xam ne amaana xëy na émission doyu ci mais livre bu ko xësee ba bind pendant des mhm. années et des années ça restera dans les annales te bokk na ci ci journaliste yi def info météo. di di alerter ndax lu mës a wax rek ci wàllum politique bu ñu doxalee ab diir daañu ci teg bët. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que justement c'est Cheikh Yérim Seck. Mm-hmm. Euh, am na crédibilité boobu. Euh, et loolu moo gën a jafe construire mooy crédibilité. Euh, boo xam ne boo waxee nit ñi dañuy dañuy bàyyi xel bu baax ci li ngay wax et surtout dañuy am envie découvrir l'autre livre celui de Boubacar Camara Construire le Sénégal du futur. pas Hassan, j'ai eu le même réflexe que toi. Mm. Euh, c'est lire les, les, dédicaces du livre, lire les premières pages, la préface, les remerciements. Mm-hmm. Euh, je vois que lui aussi déjà, c'est un polygame. dafa mel ni ci réew mi kon ku maa ngi ñëw maa ngi ñëw parce que dédicacé na fii déjà dafa njëkk sa famille mm-hmm. sa mère Tako mm-hmm. euh, ses frères et sœurs ses épouses il dit à mes épouses et à mes enfants et je disais que donc dafa mel ni ci réew mi ñu benn président daal boo xamante ne benn soxna lay am dafa mel dafa commencé jeex ci réew mi na bu <laughs> ñi nga xam ne dañuy présenté wu ñëpp c'est des polygames donc suivez mon regard et vous comprendrez du noonu beneen bi mooy il a dédié ce livre à son papa mm-hmm. El Hadji Yooyu Mouhamadou Moustapha Camara rappelé à Dieu le janvier mm-hmm. mu ne ko repose en paix Baye Tafa discret généreux attentionné humble il a éduqué sa famille dans la rigueur droiture honnêteté ak courage mhm. xam nga lii li muy wane boo xësee ba lire bien que yeggaguloo sax ci contenant bi mais boo xësee ba lire première page yi daf lay indiwaat à certaines valeurs mhm. et ces valeurs-là sont essentielles autant que moom ci livre autant que ci livre Cheikh Yérim mhm. on a vu qu'il a remercié également euh, digni dignitaires religieux et loolu c'est important parce que fii mhm. Sénégal dafa am loo xamante ne moom la ñu moom mooy ni mhm. dañu am ay kilifa yoo xamante ne dañuy dañuy woy ci seen ndigal dañuy euh, taataan seen i seen ñaan ak seen i xalaat euh, te loolu itam boo wàccee sa ànd rek ànd boo dem fekk borom mu toog fa beneen bi ci toog mooy kilifa ak wayjur dafa am solo léeg-léeg amaana doom dina am yéene Euh, defal lu nekk waajuram te mhm. waajuram du ko fekkee wala bu muy tekki day fekk waajuram war na ko ginnaaw bu yàgg mhm. donc parfois acte la boo xamante ne c'est fort et c'est important que ñi nga xamante ne également maanaam am na foo xamante ne bëgg nañu fa yegg ci réew mi ñu xam ne ñi ay nit de valeur lañ mais surtout ñu am kilifa mhm. ñu xam ne am nañu base fondamentale bu bu sol bu am solo bu dëgër dëgër laay gi nag mooy waajur loolu c'est hyper important na ci xel bu baax et Euh, ci li mu miser pour changement de cap bi euh, bokk na ci production industrielle transformation produits agriculture pêche élevage entre autres mhm. pour mën a assurer li nga xam ne mooy autosuffisance alimentaire mhm. Boubacar Camara mi moom la ñu servir sommation interpellative non mhm. émission bi paasan wala du moom bi mu defoon 31 euh, décembre Télé Futurs Médias voilà d'accord donc c'est beau ces livres là moi j'ai envie de lire et de parcourir su ko defee après xëy na dans le fond on pourra euh, revenir ci ci contenu bi euh, mais ne serait-ce que déjà li ci jot a gis nii rek c'est très très bien retour à la lecture nabu c'est important euh, que culture boobu ñu mën ko inculquer ñi ñi nga xamante perdre nañu ko parce que la la lecture répare beaucoup de choses mm-hmm. Mm-hmm. voilà et ça permet également bu fekkente ne bind nit ki binde nu couché na lépp sur du papier mm-hmm. nga mën a comprendre aisément et puis nga que ce soit mu nekk message politique mhm. ou message d'alerte comme tu dis wala euh, tout simplement d'information donc voilà merci pour ces livres-là merci à Studion notre mhm. consoeur et euh, Boubacar Camara bonne continuation à tous ceux qui n'ont pas encore écrit mhm. te ñu war a bind itam ndax bind dafa am solo merci euh, Mavan ci présentation bi dem nag ngeen jëndi ko parce que il faut il faut sénégalais yi tamit delluwaat ci ci lecture bi surtout ndaw ñi man moom xanaa ma ma tàmbali tey rek incha allah. bibliothèque euh, amatul ci koñ yi nabu daal di tàmbali amatul sax ci école yi. amatul de c'est dommage c'est très c'est très dommage pour ñi bëgg a lire mhm. livre euh, Cheikh bi. Mhm. il a précisé que du du météo. Mhm. du du investigation la. investigation d'accord que les dossiers de surfacturation et autres. ñëwaat na ko ñëwaat na si si livre bi. waaw il a en fait. je pense c'est un livre boo xam ni. Mhm. ay révélation ngi ci. Mhm. ay constatation aussi. Mhm. Euh, et au-delà des prémices de de de solutions à venir vis-à-vis du du constat général qui a été fait. je pense que ñaari livre yëpp na ko gars ci ci ci wàllum investigation parce que moom il est déjà préparé parce que wax na ni quand ce livre paraîtra ceux qui n'ont pas d'arguments s'attaqueront à ma personne à ma famille ou à ma vie privée parce que les arguments que je tiens dans le livre personne ne peut les discuter il a enquêté il a mhm. enquêté xam ah nga loolu moom journaliste moom bu enquêté bind am na contenu mhm. am na source am na fu mu wéeru li ma li ma jaaxal ci conclusion bi. Mhm. Euh, <laughs> dernière page au livre yi ah. avant des matières bi. oui oui. je sais pas y' a ay série de questions yoo xamante ne Cheikh Yérim daf ko posé mais qui n'ont pas de réponse. Mhm. par exemple dafa ne pourquoi les prix ne cessent de grimper lan moo tax njëg di yokk rek tout le temps. mu ne pourquoi extrême pauvreté bi mhm. mu ne arrêté di di di progresser depuis que moom waa bi mu faloo ba tey mhm. mu ne avez-vous apporté un mieux-être à votre peuple est-ce que yow sa askan yaakaar nga ne mhm. li nga fi jot a liggéey ci seen yow ma amélioré nga seenu beneen bi mooy le Sénégal que vous avez légué que vous allez léguer mu ne ndax sera-t-il meilleur que celui dont vous avez euh, vous yow réew mi nga xamante ne moom la la jox boo koy yëkkati di ko dénk keneen ndax woon mhm. moom moom nga ko defee waaw wala mhm. Mhm. Euh, mu ne ont bien ou mal fait de vous avoir confié leurs impôts est-ce que sénégalais yi euh, am nañu dëgg tey bi ñu la dénkee seen impôt seen diplomatie lu jëm ci seen wàllum sécurité seen dundu seen dundu doom ak seen ay avenir yii yëpp ay question la yoo xamante ne ne serait-ce que question yi rek en conclusion de livre rek doy na doy na thème ak débat ci ay émission wu émission wu émission yoo xam ne ku ci mhm. nekk mën nga ci épilogué wala ku ci nekk am nga ci sa réponse su bopp mais réponse bi ci gën a yittewoo ci bi ñu gën a soxla mooy mhm. réponse waa ji nga xam ne moom la def ci tetu livre bi mhm. kii defe naa bu ko liiree dina toog ay fani fan yoo xamante ne question bu ci nekk war na toog moom ci néegam moom kese toog xalaat képp bi ko Cheikh Yérim laaj nii est-ce que lépp am na ci ay tontu wala moom bu toogee ba xelam dal ndax dina am satisfaction ci ni mu yore réew mi par rapport ak ni ñu ko joxee woon jërëjëf Seck. Mhm. merci euh, mami euh, internautes yi like leen kenn euh, partage comme ça ñu mën a ànd ci euh, waxtaan bi alors. tey nag une précision. waaw waaw damay wax benn affaire ñun Sénégal dañuy léeg-léeg. Mhm. dañuy leer dañuy réeree borom xam-xam léegi lii borom xam-xam daf ñuy romb nii dem. dañ koy néewal sax. waaw après nag après nag ñu naan nii pourtant candidats yi bare nañ te li xewoon deux mille dix waratul am fii sanu baay bi Doudou Wade alerté nañu si keroog. Mhm. moo di ne assemblée nationale dafa am lu noo wax mii mii député majorité. différence benn député ak député opposition kon parrainage mën naa deñ pour que ñëpp bokk du dëgg proposition de loi ñu war a voter xool ñuy d'accord ñu dul d'accord ñu dindi parenage ñu war a bokk bokk benn ñaareel ba Sénégal souvent nanu Cheikh ante Diop rëcce woon ñun Sénégal dañoo sàggan ba Cheikh Anta ñu. Mhm. parce que Cheikh Anta l'erreur qu'on a commise dans ce mm. te même erreur bi lañuy ñuy commettre tout le temps te tubaab moo kaa diligenté dinañu fexe ba nit ku baax ci Sénégal war a amal njëriñ Sénégal lu baax li ma wax ngaal mhm. paate a ngay dégg mhm. mbay nit ku baax day nekk Sénégal amal ñu njëriñ wala war ñoo amal njëriñ dañu kaa sàggane mhm. moo daloon Cheikh Anta Diop ci jamono sunu maam yeeg sunu baay yéen ñi fi nekkoon personne n'est parfait waaye fa waa ji demoon ak la mu gisoon ak fa mu bëggoon dem amaana bu ñu ko toppoon tey fi duñ fi toll waaye xam lu ñu def dañoo jël Cheikh Anta Diop jaxase kook sëriñ si dégg naa wax bi mhm. Sénégal mais c'est la même ak ngeen c'est-à-dire que même stratégie mooy fu nit waree am njëriñ pour réew mi nga gis ñu lobbying moo tax suñu kilifa diine yi ak suñu këru diine yi di leen bàyyi xel bu leen di wax ci nit wala si ay nit ngeen xool ñi leen kaa wax ñana dafa am solo suñu kilifa diine yi moo xam ci baatin ngeen koy xool wala ci saayir ndax si jamono suñu kilifa yi dañoo xeex Cheikh Anta daf ci am ñenn ñu xeex si te xam nga parce que dañ leen gëmloo ni kii naka su dul noonu wala bu defee nangam ñu xamal ko ne ko boo defee nangam nangam ak nangam da wax bi ñu bloqué circuit bi loolu nag daf ñoo yàgg dal ci président Senghor ci président Abdou Diouf ci président Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall souvent li kaa indi mooy information bu dul jot comme il faut ñu xam kan mooy kan kan moo la kan kii kii. nit yor na jëmmi xam-xam taxaw parfait taxaw du waaja mhm. nit waaye di ndeysaan ni noonu rek ñu xeeb ko fekk solution la xam lu tax ma wax loolu ñi xamul bubakar kamara jéem leen xam Boubacar Camara jéem leen ko déglu mhm. jéem leen ko gëstu li daloon sunu baay ba Ibrahima Fall en 2012 taxaw tem mu nekk boroom xam-xam bu mag ñëw waaye nit ñi bàyyiwuñ ko xel bàyyiwuñ ko xel ñun dafa am nu noo tànne ñun dañuy faani tànn ko ni xool bu baax faw nu jàng tànn ñun Sénégal du neex a dégg nag mais faw nu jàng tànn te nag te nag te nag benn affaire nañuy bàyyi gëm nit gumba tax nanu wóolu nit ki gëm ko mais nanu kaa xool nañuy bàyyi xel léeg lu ñuy bañ a dégg ñun léeg-léeg nga dégg dara xalaat dara daal ne non du noonu demewul noonu mais mais parce que li nu dal nii nu kaa dund nii avant 2012 pourtant on était alerté président baal ma de am na ñu ñu doon wax nañu boo faloo dinañ sonn wallaay am na nu nu ko doon wax am na nu doon wax Macky Sall bii ngeen di jàppale nii bu faloo di ngeen sonn. président baal ma de waaye wax na nañu ko donc na nañuy observer di xool nit ñi loolu je tenais à le dire daf ma tenir à na nañuy xool nit ñi nañuy xool seen faits gest gestes nañuy xool seen dégg-dégg nañuy xool seen xam-xam xam-xam technicité ak technique nu xool kii fa mu jëm fan la lan la bëgg a proposer lan lay dem nañu xool candidat yépp nu xool ki nga xam ni tamit fonk na ay waajuram bàyyi na leen xel jox na leen importance souvent boo fonkee say wajur bàyyi leen xel torop lu ci ëpp bu la yaree fan yaree fan la war a yar. daa bëri yërmande gannaaw sa xam-xam te à la limite près daa nekk ku jub donc nanuy bañ a tànn nii ci riirandoo ñuy xulli ba baax kan moo la kan nanu xool gaa yi ñan la ñu waay. Mhm. merci beaucoup merci euh, Paa Assane euh, voilà.